be careful Tounkara ne ko lan moy be careful ñëpp xam nañ ne be careful moy defal ndank Mamadou Sy Tounkara fi benn vidéo fan yi di laajte lan moo tax muy toroxal ay ganam tey nag dama pour wane ne moom li muy def nit ñi mës nañ ko ko invité euh, nit di ko wax ne xam-xam tareel ma lii waxal ma lii lu tax nga def faute bi dafa am benn sëriñ bu ndaw nag boo xam ne moo ko jaaxal moo ko jaaxaloon bu ñuy wax euh, sëriñ Sidi Maxtaar Silla xale bu ndaw sëriñ Murit Tunkara daf ko invité ci plateau bi ñoom ñaar ñuy xuloo ndax sëñ Sidi dafa wax benn aaya alxuraan Tunkara ne ko wax ma fan la nga jëlee aaya alxuraan bi exactement wax ma ko fan la mu ne ko nag man. mënuma la ko wax fi mu nekk nii dama ko fàtte Tunkara nag ne ko waroo fàtte alxuraan boo ko mokkalee dafa da nga ko war a mokkal ba mu ne ba mu ne rumbux sëñ Sidi nag ne ko loolu du xam-xam même imaam yi fële arabi Saoudite ci Makka bu ñuy jiitee dañ leen di tegal kaamil ñuy liir ndax mën nañu fàtte sëñ Sidi Makhtar ne ko mais yow yow mii di ma xas bind nga fi livre parce que Tunkara dafa ne ko lu tax bind loo livre Tunkara nga war livre bo un livre rek vous xam-xam sinsi ko pourtant yow fi livre am professeur bu la ci corriger nan la def nga faute bi def nga faute bi dem ci YouTube ma génné vidéo bobu professeur murid la bu wax livre bi l'intégration réussie du nouvel employé manam dafa bind livre ci entreprise léegi daf ci wax xam-xam mom néna dafa am xam-xam bo xamné dang ko wara am waaye nak professeur Assane bou dafa ne ko yow savoir bi ngay wax xam-xam bi ngay wax est-ce que mën nga ma tekki lan moy xam-xam est-ce que tu peux me donner une définition du savoir Tounkara mënul sax tekki lan moy xam-xam professeur bi corrigé na ko ci ay fautes yu bëri amna na fu mu volonté à vouloir serigne bi ne nek Dédé. ken du wax volonté à vouloir volonté rek ngay wax savoir être professeur Assane Mboup ne ko déedéet kenn du wax savoir être savoir rek lañuy ñuy wax. Tounkara dafa tam di corriger nit président Macky Sall bind neuf livre conviction républicaine Tounkara amul dara lu muy seet ci livre bi y a ay faute nee na Macky Sall dafa def une faute te Macky Sall une faute ndax a fait une dafa am fu Macky Sall faute. mon discours et mon action cadre avec l'essentiel des indications mu laaj déjà cadre nan lañ ko wara bindé pluriel wala singulier khadija ne ko ah xana pluriel te ku ko xamul ne fofu dafa juum. règle grammaire lu muy wax ci français mooy le verbe qui a plusieurs sujets coordonnés se met généralement au pluriel ça veut dire que bu la neexee cadre. bu la neexee nga def ko ENT bu la nga def ko E kon président Macky Sall deful faute. légui sëñ Sidi Matar ne ko yow da nga dof mu mer. léegi mu naan sëñ bi da ngay wane reewande xaw ma sëñ si siidi siidi boobu ne ko mais yaa def li tax ma wan la sama reewande mu ne ko man maa ngi nii mokkal naa sama tur sëñ bi ne ko nag yow foofu lii may wane xamuloo alxuraan parce que yow bu fekkee ne sa tur moom ngay méngaloo alxuraan pour yow alxuraan ku ko jàng rek dafa war a xam lépp tunkara ne ko man xam naa Faatiya mu ne ko est-ce que xam nga ñaata tomb moo nekk ci Faatiya Tunkara mënul tontu dafay jaay xam-xam te moom amul xam-xam ndax professeur bi daf ko corriger corriger corriger mënuma leen lim ko corriger yëpp mënuma leen ko wax. xam na fi muy waxee ne ko quand on sait ça ne veut pas dire forcément qu'on a le savoir qu'on sait ça ne veut pas dire non plus qu'en sachant on a le savoir. be careful Tunkara ne ko lan mooy be careful yëpp xam na ne bii keeful mooy defal ndànk dafa war a bàyyi nit ñi muy toroxal wala di jaay nit ñi moom moo ëpp nit ñi xam-xam émission yooyu ma leen di wax dinaa leen ko jox léegi ngeen xoolal seen bopp ci link yi mais nag professeur Assane Mboup moom vraiment fierté la pour murit yi fierté la pour sénégalais yi ndax man vraiment ku amee xam-xam nii gën ñaa ko dégg